binta bu ñewé no koy def nga né ray fon nampal leg leg ma ca xabal ak bi dama dama bëgg déglu bu baax li ma lay wax dama bu dee da ngay rooti dëppal teen ba ma fa dëngal ngacc xolal na mu def ba dëngal ngacc ko la def ba ngaccatu ko kat ay ay anna masata ta jàngu jota maa ngi doog a xam na li tax dof day naan nguur si sa ngi jeel. mani ak Aliya ñoom ñëpp man de man xam man maa leen fekki man. ku leen di fekk ndayam ku la. doxaanal ku la neex takkal ku la neex àndal ak ku la neex su la neexee defal lu neex waaye danga xam ni xam ni yow Aida mooy sa seytaane ndax dafa laa dafa laa noo Binta bu ñëwee koy def nga ne raay fóon Cheikh Mbasso rob bi romb sa xarit yi ah ñu naan laay. grâce sa jabar bol na. déjà lii laay waxati man ban intérêt laa am sama xarit naan ma sa sa jabar nice na man li moo tax ma tak la dama la takk pour que man man mii ma non sama jabar nice na. Rangou na nga def yaa ngi jàmm nga ni taat moo gën a yomb Sénégal ci live bi nga doon def neel sa taata gën a yomb yow Sénégal am na yu jigéen yoo xam duñ ko joxe dañ ko takk ba mu dëgër bon. da ngaa monter sa fit. wolu sa bopp ñu góor ko man dama xamul sax kan gis bi Eva première dame mais bon Marichou les aigles ne volent pas avec les pigeons <laughs> maag yow bokkuñu classe récréation moo My name is, his name is Boss Uzenaida. ay gudden taaga men ay gudden taaga men yu xaay yu xaay sempa sempa hypocrite baaxul hypocrite baaxul hypocrite baaxul non si li bo ki li mo ba xo pas venir me coller, je ne suis pas ta petite, vous on vous connaît. Bébé, mmh. Doudou, wow. j'ai dit tu as beaucoup de charisme. Et j'ai dit faut pas venir me coller, je ne suis pas ta petite, vous mm. savez comme jamais. jigéen dal bu xeesalee ba mel ni golo gu ngas di lër lëri ñun ndaw see karafet waaw ñoom te man seen xeesee damaa jaaxal ñoom lu ñu xees xees seen taari day mel ni jaay këtu këriñ buy door a wàcc man xeesal loolu la ma jaaxale. génn time. yow mi li kaay da ngaa posé posé lan.

wax dañ ma koo moo ñaale man italien laa xaw ma lu dul commencé ak tuuta benn ak Gunestein. <laughs> Cheikh Mbasso rob bi romb sa xarit ah ñu naan laay. grâce sa jabar bool na. déjà lii laay waxati man ban intérêt laa am sama xarit naan ma sa sa jabar nice na man li moo tax ma takk la dama la pour que man man mii ma non sama jabar nice na. ramasse an sa kayit yoroo kayit duggal man la ubbil soo ma yóbboo nelaw rek laa fay def yoruma dara lu ñuy tere du ma sàcc des fois nga fekk maag genre ndox yooyu nga xamante ni dañ koy tere mais man terewuma ko sama bopp masata ta jangu jotati na xale yi kin gisaluma Aziz waa Joli kuy sa rappeur. man ci àdduna. Hmm. Samba Peuzzi rek. borom ay waay ndeysaan man de lu ma neex ay eh, sol classe bu naaj. Eh, sañ sa classe bu naaj. su ma sañ see réew kontaan. ay waay moom saagawul kenn. casel popel ah. jaaman saagawul kenn. waaye xale yi na ci internet bi diiba ngaasa bi leen na ci internet bi di màttante ak kee keneen ki wan liri kër wan si bi kër yan na jur jàmm lii daal yëpp amit tàpp foral jaxam yu bari yooyu mu mel ni gàmbaas lii yëpp amit tàpp saaga nañ ci internet ngeen ñu jóg los sensateur laa jëm ak yéen suba di ngeen ko ba tey damaa somb dooraa tax nga siiw loolu bañ ko. sa jabar naar nga maar. lii fi dama koy gàcce. waaw mais yow la. Dans notre culture, on n'aime pas les femmes minces. Comme moi. Oui, comme toi. On a l'impression qu'elles ont faim. Donc j'ai l'air d'avoir faim. Oui, c'est ça. fekk góor gu rafet góor gu dana bari gel du maye ba pare taar ba lay jaay jaay taar lay doon sañse lay def ñëw toog nga koy financé naturellement xartu góor bu la suturaal boo ñëwoon sax di ko jox sa bopp day bañ <laughs> Assalamualaikum. ñun Donald Trump lañ bëgg wacce. Emmanuel ah. Macron mo ñu yoni. France lañ jógee ni. dañ ñu ñëw Sénégal ci tirailleurs yi jël ñi nga xamné ñoo mat 1 m 70 yow joo ñu xol ñaata men nga joo la ca. ma fekk ma sangu ba set do sama serviette yor sama njàmpeeg sabu, yor sama siwo jóge ci douche bi toy xep genn romb ko mu naan ah, bala da nga don sangu man ko mo don football léegi lan mi tan léegi. ah xanaa nit ñi dañu di ne da nga ñaaw. wa moy gaay sohor yi rek. <laughs> ñan ñu sohor loolu. nit yi di di ma tiim yow man nu ma mel ni nu ma xoolal. Ah. nu ma nay seeni be yekko man mhm. naan juus. ma bu la suturaal boo ñëwoon sax di ko jox sa bopp day bañ. <laughs> Eh, eh, eh, xaaral taxaw bul dem de jàpp ci rek fi fii wala ci kaw.